Mhm, moo ko war yaay yaayam. man mii ma tëdd nii ma dara. salaamaaleykum am internet yi nuyu nañ leen bu baax di leen ziar di leen jaajëfal te di leen jox seen wàccuwaay tey nag lañoo daal di ñëw fii ci benn cas boo xam ne dafa daal di spécial muy suñu maman euh, Diawara dafa daal di euh, feebar feebar bi nag daal di nay xaw a métti lool ñuy ñaan rek képp ku gis vidéo bi rek nga daal di koy jàppale daal di koy euh, dimbali ndax jamono juñ toll nii mi ngi dund loo xam ne dafa daal di métti maman maa ngi lay nuyu bu baax. Mang ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen nuy di leen siyaare di leen ñaanali jàmm ak salaam yal na leen ko yàlla defaral njëg leen jëf yow xamuloo ma bu la neexee li li nga daje ni doo ko daje sama doom bi bi rekk nga xam coono naana moo la jël maa ngi fi maa ngi yàkkaare ci yàlla yàkkaare ci yonente bi yàkkara ci mbokk jullit yi du aji dimbal ma commencé ñaani ñëw ci ñaar dërëm ba ñetti dërëm xeebu ma ko maa ngi lay ñaanal yal na yàlla yokkal dafa leen jàmm mais samay kattan moo neewi sama doom bi bi ama maa ngi feebaral huit mois huit mois nga feebar ak léegi. huit mois maa ngi tëddi. feebar bi nan la dikkalee. man feebaral bi saa yoon tension la ma dikkale de ndax bu njëkk bi hôpital tension la ñu wax mu jëlee ñu ne jabet jabet bi moom balaa muy ñëw daa fekk ma yore jabet ñetti at bu ma feebar ba demee hôpital ñu ne ma danga am tension ma nekk ci yaram bi néewi iram binne bo tanki japp munutuma dem munutuma ñu ñu jekke jekke ñu ne jalis mané ko ay nana jalis de ray de kono man ma ngi ci bis mune ami jalis bu ñekke e. mhm. bi ay ray jalis legi am nañ ko garab ñaanal may rek yalla may yalla may katane dina la faj mané ko dom bi yaangi ci loxo yalla Mudef namu katmua. Katmua. Sama domi bile kulu nanulu. Solulu yere takulu takai. Saki suru ornas bugena meti dalali jamu wi. Dima dugal dalali jamu. Un tegal na cent sama loko domi bi. Garab bi lali. munutu maka dañu joxe kaas. loolu moo tax kon ñu génne la wala. waaw boo xaalis bi bare bu ma laajee booba sama doom bi xaalisam bi matul mu génne ñëw liggéeyante ko daa dem mu versé rek ñu ne naa génne ndax mënatuñu koo fay mënatuma kaa fay dañoo taxaw vere sama doom bi bi jooy man mënuma dox maram la jàpp tànkam man ko na bàyyi jooy yàlla mi ngi fépp na ma jële yóbbu ma kër gi ci la sama rakka sama doom bu góor bi abulo abulo ñëw foobu ma meli liiri dama dugal ma ci woto ma ñëw mu muy jóoy ma ne ko naana ñu bàyyi ci loxo yàlla yàlla ëpp nit ti doole ci la ñu nekk ba yàlla indi ko yow mii d'accord mama, ñu bëggoon a xam fièvre bi bim lay dal da nga def la daniel wala nan la diké fièvre bi jéké gu lu daanal ma de dafa am ku gañu ma dem ma ñew ma miri bu ma miri ma ne ko nana ma ngi miri mu ne ya ñëmé dëj bu toy toy dëj bu bees dëj bu bees ndax ni nga mel lak pa bi pa bi gañu légui nga dem ma ko sama jëkkëru xarit la sama xariti jëkkëram la mais xam naa li feebar la rek du foofu après nga tiit nga ne ma tiiti ma ñëw ma teddi ma fat sama noy kay bi jàpp mu woo tagi si jëli ma yóbbu ma dalal jàmm man ba ma jógee dalal jàmm ba tane booba am naa weer ak fukki fànni dalal jàmm ma ñëw tane rek ma ne ko duutuma nekk Sénégal dem Gambie mu ne eh, ami senegal moo la mën a faji de ma ne ko damay dem a laa génne samedi ma dem Gambie ma demee Gambie samedi ma am fa trois semaines troisième semaine bi. nga demee pour faju ji Gambie. déedéet damaa ñëw noonu ndax boo ma demee waxuma foofu dem feebar de booba yaram bi néewi na mënuma dox ñoom nee na am na ku fa nekk day faji néewi néewi. ma dem ko di ma jox e, garabu olof yi ma di ko xooji di ko baxal di ko naani di ko sàkku loolu gën a yokku ma fu ma tëdd ma jékki-jékki nelaw xamatuma fan laa nekk. sànq ci sa biir wax yaa ngi naan dañ la wax benn dese sa jëkkëru xarit or ko sax yàlla mooy dogal bi nga ñëwee ci nga daal di diitee xanaa ba nga demee woon foofu dafa amoon ay mbooloo yu bari wala da fa nekkoon di yuuxu. non yuuxu ma mais jooy na. yuuxuma de mais jooy na non mbooloo bi suñu famille bi rek la fa nekk yëpp xam naa ne li yàlla ko dogali rek jaamu yàlla lu la daal bulu bañ a dogali yàlla yàlla ko dogal ndax lii fu muy dem doom ba mun nañ ko seetaane jabaram mun na ko seetaane yàlla la ndogal yàlla la ndax waaji bi sama lépp la maanaam ki waaji bi xanaa li ñuy def lu mooy lekkuñu nit ci àdduna def nañu lu nekk de bi assuwe sama kaw bu trop léegi ma feebar ma xam nana jëli sapeur pompier et ambulance Gambie quatre cent cinquante mille jëndi garabu cent cinquante mille dugal ko ci biir boota bi muy ndikale ko six cent mille ñu jël ma Gambie indi ma fi foog nañu docteur mag yi yëpp Sénégal kenn nangu maa jël ñu ne ndax ni ma mel dañoo yaakaar damay dee. an sa borom kër. mi ngi Mali kooku daa tiiti ba dem Mali daa tiiti ba dem Mali bàyyi ma sama ndoom bi bi. lan moo ko tiital. feebar bi moomu góor la mais daa tapete rek. mais daan na la ci jàppale. Mm-hmm. Mm-hmm. jappale na ma bu xëyee lu nga ko jox mu indi mu def ko dépenser ak kay mom tamit doola ma demugul non da am lu liggéey day dem jël bagage si jàmbur yi Mali di ko indi fi lolou la mais mi may jappale nek lo xamne ne na lol comme niñ ko waxe jalis daal di koy dal et c'est pas facile goudi gi ba xam di nga meuna teud nelaw noppaleku. mukk man ni ma gisee ni lay fanande bu bés ni nga toge ni ma toge ni lele ñu tegal matala bi e, njëgënaay bi sama kanam ma tege ci sama bopp damay tegal bop bi rek nopi, bu digi lam moy faral di lam metti. yaram bi yep du mané bop du mané tanki me yaram bi yep la yaram bi yep lele ñu ne ndox bi a op ñu ne ndox bi nek sama yaram mo op. te bu ma demee bu ñu ŋàcc ndox bi ma féexi suuru boobu ma féexi suuru boobu. mais di nga mën di lekk di naan. waa lekk bi moom a xaw a jafe tuuti mais ndox moom dama koy naan ñoom ñoo ma koy fu may faju ñu ne ndox baaxul ci man buma ma bëggee naan ñu jële tuuti rek ñamali ma moo tax naan demutul fenn mm-hmm. ndax bañ a ma naan ginnaaw. ba Mamat jële lii naa café moomu nangutulu ko ma naan ñoom ñoo ma tere problème ndox yëpp ci akiri ay soo ay sombi ay cere yooyu yëpp la ma tere kon léegi lan ngay lekk man ñu ne ginaar yàpp foie man jabet bi ci tamit moo tax man bëgguma yooyu dama lekk ba suur mhm. léegi moom man na ma bàyyi nii rek xiifuma massa massa mu nekk lu daw yaram yaay ndeysaan joo xam ne jàmbaar la woon daan liggéey di daan dooleem ma bëgg ay njabootam maman lan nga doon liggéey tey pour ñu ko xam. ma doon jaay ma doon jaay sepp ak àll ndaka sama doom bi ba muy juróomi yu at ci la commencé toogu. ba tey sama bi bi talatu du dara suba mala ngoon man ñu ne jigéen day sonn ci doomam mais man lii doom bi ba ma ko ombe ak li ma ko wasine méttite bi ma daje mu daje ci man ma ëpp loolu doom bi bi na ci man jàmbaar moo ko war masa dama tulu di ko tulu léegi bi lay xëy ci lay gont man mii fu ma tëdd ne mënuma jógu mënuma dara moomu bu dee keneen la moo buntu xatal ma mu di ma geddi mais day toog bu xamee métit bi ñëw ne muy yi sama yaram wax naa ko na tukki saa bàyyi ma fii man dama ne ko na tukki bàyyi ma. déedéet tukki bàyyi la fi lolou moko war ndax li islam wax dafa tuddu yaay ñaata yon dogu tuddu papa lolou moko war massa. ngi am passeportam am amu BM, na tukki bàyyi ma fi nopp loo tuuti. doomi bi da jale aduna mi yëpp tegi ko sama kaw. moko war lolou loolu lo me yaay yaayam. moo ko war. doom bi bi de kuy ñaanal ñaanal le ma dom bi bi de bom lu dërëm sanga de ma nyana ñaanal ma sama doom bi Nana Jallow mi ku ko ñaanalin ma sant la sant gërëm la bëgg naa ko trop sonn na ci man Massa moo moko war metti na metti na trop metti na ku na xam ne yaay ak doomam Massa léegi ñan eh, ngay xaar ak ñan nga ciy xaar man mboolo julliti rek man xaw ma kenn xaw ma góor xaw ma jigéen mais xam na julliti yàlla nangu nañu dimbalante yërëmante nañ hmm, ñi xamu yàlla mun nañu yërëm mun nañu dimbalante ci ñoom laa yaakaare doom bi maa ngi la nuyu di la sant di la gërëm li la daje ne bu la neexee doo ko daje ndax boo may ke sama fukk ak ñaar munu dara ci sama jemu, xamuloo ma xaw la musuma la defar dara iya, nga iya, dégg feebar na iya, rek sa yaay ndongo la nga jël bi sama feebar bi nga uti foo ñu dimbali ma maa ngi la sant tamit di la ñaanal jàmm ak salaam ak yokkale ak yegale yal la ko yàlla defar liñ ci bëgg yaakaar ñu hmm, koy may bàyyi ko lu say yéen am leen jàmm rek ñun yàlla bu ñu bàyyi fa yene am lay jàmm rek bo leen am jàmm nga saraxal ma saraxa bi tamit ci la ube saraxa bi ci la de bo juru doom bi nga bay bi mu di la am nga lepp am nga lepp ma ngi lay ñaanal ak bëccëg ñepp la yal lay yalla defal Ubi buntu war bi mais bu dul loolu maa ngi yakare ci nit ni rek ñu dimbal ma yalla tam ñu dimbal ma rek sama doom bi sonu na ñu yërëm ko hmm, nana bu togu nana day joy e rek bugulu e ma gis ronkoñam mhm. nana day togu di joy rek moy sama taw bu togu xolum sangade de fekke may nelew Finga ko feke mwitog. Amna juu bu man lew mu umutogu sama wete. Lepo juu ilako idafu. Muta kamane kwa. neexulu ma ma dee rek momu dund ak dee dee ak febar wuté nañ mama des fa nga gis ku son lool bañ yaakaar da fay dem yalla moy kun bul wax loolu dëgg la maa ngi leen jërjeefal di lay ñaanal ci kanam ci kaw rek ak mujj bu rafet yal na leen ko yàlla defal. Mm-hmm. mi ngi noonu mu nekk loo xam ne daal di nay metti lool li ko gis rek sa yaram daal di nay war a daw yaay joo xam ne liggéeykat la woon nekk jàmbaar di jàppale njabootam tey mu daal di feebar ñu ñaan képp ku gis vidéo bi nga daal di woote daal di koy uh, jàppale mu daal di dellu ci li nga xamante ne nii moom la nekkoon parce que wax na ko ndeysaan feebar yi nekk ci moom daal nay bari te doomam ji di naana nekk jàmbaar doon voyage yi dem naa dem a dem ba yoratul sax loo xam ne mun na ko fajee yaayam ñuy ñaan ngeen jàppale ko